may mu wax ci euh, <laughs> lu lu lu internautes yi wax ak nu ñu émission bi. effectivement nag euh, li ñu koy laaj wala li ko internautes yi di laaj moom xam naa yoon dina ko may mu indi ci ay tontu mais question yi bari na internautes yi seen euh, réaction aussi bari na tànn nañ ci yenn rek ngir partager ko ak suñu invité bi baaxoon nañ di ko def hashtag bi déclic la miin ngeen ko actuellement ñu ngi jàll en live sur Facebook Facebook bu télévision Futur Média dañuy jiite ak question bi njëkk ci ci Facebook la mi ngi tudd Amina Ndiaye beneen njaayeen la moom dafa ni moom nekkoon ministre moom Souleymane Ndéné Ndiaye ndax d'accord na actuellement ak président Macky mi nga xamante ne dafa daal di teggi poste premier ministre bi ndax loolu d'accord na ci am. d'accorduma ci. des na yéen et je savoir ndax dama ne président Macky dafa am ay attributions constitutionnelles en plus il a un agenda international mënuñu supprimer poste premier ministre moom muy gérer le quotidien problème bu ndaw bu am ci benn direction. wala ci benn ministère yes ci moom. ba ñu waree dajalee ñi nga xam ne ñoom la war a dajalee kenn ku nekk mu laaj sax dama ne ko man je suis contre la suppression du poste de premier ministre. wax nga ko muy dégg. ci kanamu mbooloo maître El Hadj Diouf confirmé na ko man ak maître El Hadj rek ñoo d' accord loolu ne ñu supp ñu war a supprimer poste premier ministre. d' accord ci. Hmm. parce que dans un gouvernement comme xam nga bu ñu bëggee indi. jamonoy Mamadou Dia jamonoy Abdou Diouf bi mu soogee jël pouvoir bi su premier poste premier ministre c'est des époques différentes dañu toll ci jamono boo xam ne les la charge du président de la République est tellement énorme que dafa war a am un premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale bu ngeen xoolee cacophonie bi amoon ci Covid bi ku ne def déclaration lu ko waral parce que c'est parce que amul un coordonnateur mais président moo ne woon dafa bëgg fast track moo tax mu. dile fii man xamu loolu fast xaw mooy lan mooy. ah si jàng ko jàng anglais. non ma ne fast track ni ñu koy jàngee ci anglais. ak li ñu gisee yëf yi di doxee. c' est diamétralement opposé. Mm, maanaam apparemment dafa gën a diis sax daal gën a na mel ku gën a diis de. dafa gën a diis parce dafa bari. <laughs> kon nag nga ne dafa diis. kon dafa gën a ma ne lumière dafa ëpp. low track la. <laughs> Mamadou low track. Ah, slow slow. <laughs> beneen slow track mi ngi noonu euh, beneen question bi monsieur le ministre euh, moo di question bi nga xam ne gis nañ ñi internet yu bari dañ ko posé moo neen maanaam loo xalaat ci retrouvailles entre euh, président Macky Sall ak kii di Idrissa Seck mu jur fii coow ba ku nekk joxe ci sa xalaat bëggoon nañu ñoom internet yi xam naa nga indi ci sa xalaat ndax d'accord nga ndax xalaatoon nga ko ndax yaakaaroon nga ko ndax en tout cas question yi bari na ci internet yi lu mu li mu ñëwaat tey ci waxtaan bi waaw retrouvailles yu président Macky Sall ak président Idrissa Seck lu ma bett la xalaatuma ko woon bien entendu mhm. président je ne suis pas dans le secret des dieux mhm. président Macky Sall xamaluma ko dara li muy dox soo bu ngoon xaw ma ci dara waaye nag moom président la république di président majorité mhm. am na euh, intérêt élargir ay base politique am kon nag ku ko neex mën naa day waxtaan ak yow pour fexelaa indi nga jàppale ko ndax loolu dafay yokk dooleem ci lim yaakaar donc moo waral mu dem seeti euh, euh, monsieur Idrissa Seck pour mu ñëw bokk ci mouvance am mu dénk ko conseil économique et social donc mu jox ko cër boo xam ne xëy na dina yokk dooleem le président Macky Sall yaakaar. Mm-hmm. mais yow rafetlu nga ko bett na la may rafetlu non du lu may rafetlu wala lu may ñaaw loolu sama yoon nekku ci. président Macky Sall dana wuti ku ko neex mais sama yoon nekku ci man sama yoon nekku Mamadou dernière question mooy dernière question bi xanaa yoonam mi ngi ci moom mbirum troisième mandat bi la uh-huh. question yi boobu ñëwaat na internautes yi euh, di ko laaj uh-huh. nee nañ lan la xalaat ci coowal troisième mandat bi mais surtout tamit statut euh, de l'opposition bi nga xamante ni euh, temps yi xaw nañ ko bàyyi mais tamit il faut ñu statut ñu xam ñu xam ci dara loolu tamit gis nañ ni internet yi. laaj naa gis euh, naa ci aussi euh, Souleymane Mamadou gis naa ci Souleymane ndax da ngay présenter sa candidature 2024. 2024 su neexee yàlla yonent beeg Serigne Touba. ñaan <laughs> <laughs> naa ko baykat yi moom nañ la wooteel parce que programme bi. su neexee yàlla ak yonent beeg Serigne Bamba. <laughs> Uh-huh. bëgg naa présenter 2024. incha allah affaire troisième mandat du ma ci du ma ci wax ndax ndey mbi liggéey waxu ci du ma ko gën a bari wax. mais soo présenté woo. mais yow voilà présenté woo kay loolu mooy yow président Macky Sall daal tant ci waxu troisième mandat. Mm-hmm. Mm-hmm. man Souleymane Ndéné Ndiaye ci wax. mais bés bu ne moom par exemple. du ma ci wax tant que waxu ci. waaw eh, euh, mais yow léegi da ngay présenté. waaw c'est-à-dire que kon yow jàpp na mandat man. sama candidature ma intéressé. mais lieutenant yi dañ leen di grand jury yu passé. man waxuma ay lieutenant man duma lieutenant kenn. kon yow daal nday wax eh, man duma lieutenant eh, kenn man lieutenant Ablaye Wade laa woon. Ablaye Wade est out nekkatul candidat. très bien monsieur le premier ministre. loolu leer na <laughs> eh, suñu la déggee nga wax ci Ablaye Wade dafa mel ni nga am cofeel ci moom ba léegi. ah oui bu baax a baax a baax. Uh-huh, uh-huh. cofeel gu dëñ. Mm-hmm. cofeel ndax. 1978 euh, la xam Ablaye Wade. tuddee nga ko doom itam. tu tuddee naa ko doom. te Ablaye Wade daf ma def bu ngeen bu ngeen xoolee bu baax sama digganteeg Ablaye Wade mais cofeel ak mbëggeel ak lépp ngi ci biir ba tey jii may wax ak yow. la dernière fois que je suis voir le président Wade daf maa gunge ba may dugg sama oto. yàggul déedéet fan yi ci gannaaw avant Covid bi. après loolu. Mm. ndax dama xëy benn jour rek woo ma ne ma waa Souleymane mais sama tableau boobu ma la <laughs> mun nga ma koo indi ma xool ma ne mu ne ma ñëwoon suba. tableau bi ma euh, benn peintre euh, kii la euh, benn peintre dafa congolais. Mhm. waaw tableau bu rafet la nag daf ko daf ko peindre ci peau de peau de vache wala peau de mouton. Mhm. muy tableau bu rafet alors. mu ne ma table bi daf ko maye woon déjà donc <laughs> naa ko delloo mu parce que <laughs> maye nangu baaxul mu ne ma <laughs> mu wax ma waxi wala maye nangu baaxul nee nañ ku maye nangu sa yaay dajur muur waaye yaay dajur on a rigolé. voilà dinañ ñëw gën a xuus ci wàllu politique bi comme internet di junj nañ ko Mamadou maa ngi lay gërëm bu baax. waaw maa ngi lay maa ngi lay ziar di jaajëfal aussi suñu invité